sët yaa ngi ci biir jarbaat yaa ngi ci biir jarbaat yaa ngi ci ni ne kii di yi la bokk ci jarbaat yi la bokk ak ñoom ak ñoom Abdoul Aziz kon bu ñu nuyoo ba noppi ne kon bu ñu nuyoo mooy sant mooy sant yàlla na ci bés bés na ci bés ñu génn liir ñu génn liir bàjjal jox bàjjal mu wat mu wat sang sax sang sax boole ci muur ak sëru dëkk muur ak sëru dëkk ñu jox imaam ñu jox imaam mu nodd mu nodd liqaam liqaam joxe tur imaam ñaan imaam ñaan bokk bi ñaan bu dee jigéen bu dee jigéen yàlla nañ dimbali ba di ko may borom kër bu dee góor bu dee góor gis nga affaire yàlla nañ dimbali tabaaraka tabaaraka meñ ñeel ngooñ mo meñ ñeel ngooñ mo mu nekk juróom mu nekk juróom bu la téeméer ba téeméer waaw war naa doy waaw war naa doy bu ci war toog lu mu sant yàlla sant yàlla waaye dana baax rek waaye dana baax rek dana baax rek lay baax na de jëlal pistool yi may rek muy bëggee taalal pistool bu baax jëlal caay siwal gaal moom tabaarakallah su ko defee nag su ko defee nag comme que jant baa ngi sopp ne comme que jant baa ngi sopp ñu daal ci jublu rek ñu daal di jublu ci farata ji rek macha allah jazakallah xeyran imam jazakallah xeyr bilal xam nga kuy sàcc wax boo ko joxee wax kuy sàcc wax ñu laa jël boo ko jël su ko defee ca téléphone wax kii mooy kan lii waxal waxal waxal saala biige saala biige kii mooy saala biige saala biige ngi nii saala biige ñëw na saala biige ñëw na imam Sale Bigué Sale Bigué ñëw na ñëw na yàlla yàlla fay yiw yàlla yàlla fay yàlla yàlla gën a barkeel yàlla yàlla gën a barkeel bi jaay Seydou Wujudi bi jaay Seydou Wujudi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallah tabarakallah tabarakallah tabarakallah aji mbër saale bii nga ñëw na saale bii nga ñëw na yal na yàlla gën a barke yal na yàlla gën a barke saale bii nga ñëw na yal na yàlla gën a barke tabaarakallah saale bii nga ñëwaale na nijaayam saale bii nga ñëwaale na nijaayam ah nijaayam ñëw na ñëwaat na ñëwaat saale bii nga nijaayam ñëw na nijaayam ñëw na ñëwoon na nijaayam sama beneen nijaayam Saalé Bigué Saalé Bigué di jaayam ñëw di jaayam ñëw macha allah macha allah jazakallah jazakallahu khairan yàlla yàlla gën a barke di jaayi seydil wujudi incha allah sëy bi incha allah yiw rek yiw rek sax rek sax rek ba gis ay setan ba gis ay setan incha allah incha allah taala barke Seydi Hadj Malick barke maam Seydi Hadj Malick barke hadara bi barke hadara bi yàlla ko yàlla def yàlla na ko yàlla def di jaayi seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla barke su ko defee nag léegi ñu daal di jublu ci mbir mi macha allah kon can gi anamu na daal li fere. nee nañ fukki juni mom moy tian bi fukki junni mooy bëyu bàyyi lii nag sama nijaay ne nijaayam nee na moo ko def ci jàkk nijaayam papa jëg imaam ngi nii bilal ngi nii ah imaam ak ñu ñu ñu sàkk waaw su fekkee fi ñu sëriñ la sant Mbàkke waaw ñëw ci kër waaw suñu demee bay may waaw moom mu ñaan waaw yow nga may ko waaw maa ngi maa ngi juum sax parce que kii mooy may mooy joxe ndigal pour koy may mais daal su ma sañoon moom mi su ñaanee mm. kuy maye maye. waaw su ko defee xut ba nga xut. sama téléphone dama ko dugaloon sans force dama ko defoon kii imaam yi. ak sëriñ si. waaw vivreur. yaakaar. Mhm. ak wóolu lañ leen di def. jërëjëf soo ñu jiit topp ñu jiit ñu topp seen gannaaw. jërëjëf gannaaw loola nag daje na fii. ndax at bi yaakaar a ngi fi. Mhm. wóolutee ngi mhm. kii dëkku maamam yaakaar nga fa kóolute nga fi yàlla dajale leen fii. du hasard nanu utiliser loola. man jariñu ci looloo tax moo xam. jërëjëf kii mooy ñaan sëñ bi Mbàkke mooy ñaan sëñ bi. waaw. mooy ne can gaa ngi ni fukki junni la fukki junni la bayu baay bayu baay fukki junni fukki junni joxe nañu ko tabaarakallaahu jàkka ji ñëw na jàkka ji ñëw na ñetti junni ñetti junni walaay ëpp na ko wallaay ëpp na lañ njëkk a joxe sax lañ njëkk a joxe sax ci jàkk ji la ci jàkk ji la bokk te bu dul woon loolu bu dul woon loolu dama naan wa annal masaajida naa wa annal masaajida lillaahi yàlla warta gën a tuuti yàlla warta warta gën a tuut le waaw waaye li ci la bokk nag waaye lu njëkk la ci la bokk am déggu leen ma dégg nañ la de fi nga waxee baax comme déggee rek baax na oo comme déggee rek baax na mat mat na mat na tabaarakallah can gi maa can gaa ngi nii waaw can gi can gi nag mi ngi ci wax comme man sama mbir day leer comme comme man sama mbir day leer ñetti junni yow yaay bilaal ñetti junni mooy jàkk ñetti junni mooy jàkk kon yow téyel bi ma téye bi defal sa poos daf leen ah nee na ngeen def seen dafa leen ko ci poche. taxawal ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw. can gi daal. nee can gi daal maanaam. maanaam. ñetti junni daal mi ngi nii. ñetti daal mi ngi

waaw waaw mi ngi ñëw. waa léegi imaam nee na. jàkk ji ñëw na. jàkka ji ñëw na. jox na Bilal yi. jox na Bilal yi. seen cër seen cër. yëfi imaam yi. yëfi imaam yi. imaam yaa ngi nii toog. dugg na ci poosu imaam. tabaarakallaahu nee su ko defee nag. can gaa ngi nii can gaa ngi nii. sëy sëy. dafa am ay pom. dafa am nag ay pom.

bi na kilifa bi am na kilifa. kilifa ku jigéen kaa ngi nii kilifa ku góor ki. kilifa ku góor ki. mooy daaw góor mooy daaw góor am de mooy ku jigéen ki. ku mooy daaw ku jigéen ki mooy papa ji waaw mooy waaw. mooy daaw ku góor ki kon kilifa am na. wasu subi subi mooy sadaq can gi can mi ngi nii tabaarakallah wasu ma magi mooy lu ñuy wax maxal maxal mooy. amal koo maye. amal koo maye. amal koo ko may amal koo ko may. dajale nit ñi. dajale nit ñi. damay maye damay maye. koy maye koy ma ku ma maye. aw ma ku ma maye. sëy bi du du wér. naa ku ma maye. am naa ku ma maye. waaye aw ma ku ma ko maye. aw ma ku ma ko maye. sëy bi du wér am naa ku ma maye am naa ku ma am naa ko maye am naa ku ma ko maye mais ki may maye waaye ki may dafa nekk ci buumu jàmbur dafa nekk ci buumu jàmbur dafa nekk ci idda mbaa dafa nekk ci idda sëy bu du wér sëy bu am naa ku ma maye am naa ku ma am naa ku ma ko maye am naa ku ma ko maye. ki may maye ki may maye ci idda. nekkul bu mu jàmm waaye ki ma koy jox na ñeenti soxna. yor na ñeenti soxna sëy ba du wér. leer na wala leerul. loolu leer na loolu mooy maxal. loolu mooy maxal. macha allah macha allah. wasu. ne wasu. ma ma sa sa. sabi. sabi mooy siixa mooy siixa bi. may naa la. may naa la jëlal jëlal man seen xaaj maa loolu def moom maam sidil xaaji maan nag radiyallaahu anhu loolu la def moom xaarul ñu koy ñaan moom xaarul ñu koy ñaan dafa metti de ñaan dafa metti bokk yi may ma dafa metti daa metti maam Seydil Hadj maam Seydil xaarul ñu koy ñaan xaarul ñu koy ñaan dafa yëg ni dafa yëg ni bëgg nga rek bëgg nga rek mu may la xanaa ki yëg ni bëgg nga waaw ki yëg ni la mu may la xanaa lim la may xanaa ko téye mooy xutbaam bi mooy xutbaam bi ak nangu bi ak nangu bi may gi moo njëkk may gi njëkk nangu bi soog a ñëw nangu gi soog a ñëw tabaarakallah su ko defee kon kon ponk yaa ngi noonu ponk yaa ngi noonu gis nga wax naa ba jeexal ne wax na ba jeexal ma seede tuddul seede loolu ni sëy mën naa am yëgoon ni passeport sëy passeport sëy naa am sans seede mën ah, am ah. waaw bu uh-huh. ma Pape Diak fe Pape Diak fekkee sama néeg. nee bu ma Pape Diak nii fekkee sama néeg. déglu leen baax. déglu leen. jar naa déglu de. ma fekkee sama néeg. ma fekkee sama néeg. ni ma sama doom day bëgg sa doom. ni ma sama doom day bëgg sa doom. ma ne ko ana can gi. ma ne ko ana can gi. mu ne mi ngi nii mu ne mi ngi nii. ma ne ko ma may la nga nangu. ma ne ko ma may la nga nangu. may naa ko nangu na. may naa ko nangu na. pas pas wér na. pas pas ba wér na. am wérul yéen a jur. am wérul waaw yéen a jur rek. yéen a jur wér na. wér na wér na. pourtant seede amul pourtant seede amul fa. te te pas-pas bi wér na. te pas-pas bi wér na. ndax ñoo jur. waaye. waaye pas-pas boobu wér. pas-pas boobu. bu wér bi bu wér bi ku góor ki. ku góor ki mënu cee jël soxnaam. mënu cee jël soxnaam. déedéet déedéet. lu dul maag Pape Dieng bi ñu génnee lu dul maag Pape Dieng bi ñu génnee. dañoo wax waa ëtt bi. dañoo wax waa ëtt bi dañu doon maye diw ak diw. dañu doon maye diw ak diw. leer na wala leer. laa ilaaha illallah. allahu akbar. jërëjëf. gàttal ak طح الله لا اله vendredi Hadj Hadj Mansour. macha allah vendredi premier de. Hadj Mansour. mais Hadj Mansour. xalifa maam Musaale. Alhaji Mansour. Alhaji Mansour jox na adiya Alhaji Mansour. jox na adiya Alhaji Mansour. suñu turandoo maa ngi moom suñu turandoo maa ngi moom. mi ci ginnaaw baayam mi ci ginnaaw baayam. way way leen Mansour Mansour Malick wal bayadi Alaaji Mansour mawdoy baayam wal bayadi Mansour Malick wal bayadi Alaaji Mansour mawdoy baayam baarakallaahu sama jarbaatam mi ngi ñëw. eh jarbaatam Cheikh Tidiane mi ngi ñëw. addi alaaji mun se macha allah addi alaaji mun se cheikh cheikh bu daal ñu ko doon tudd léegi ñu ko doon maam Seydi El Hadji Malick rus bi rus nag xadaraam bi te mooy jàpp ca rek te mooy jàpp ca rek na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp jàpp ku na jàpp ku góor na jàpp ku jigéen na jàpp ku jigéen mag na jàpp mag na jàpp gone na na jàpp ne mag ki dañ daan wax sëyu gone sëyu gone mag ñaa cee jàpp kon mag ñi jàpp kon mag ñi jàpp leen na dëgër na dëgër tabarakallah macha allah léegi nag ñu jublu ci mbir mi ñu ñëpp père teg ko ci loxol Baye. maam Abdoul daan na wax. Baye moomu. Baye moomu. bàjjen moomu. bàjjen moomu. tante moomu. tante moomu. nijaay moomu. nijaay moomu. ndaw si ci boppam moo ko moom. ndaw si ci boppam moo ko moom. nan ko teg ci loxoom. nan ko teg ci loxoom. lu mu ci am baax na. lu mu ci am baax na. bu dee ab camisole. bu dee ab camisole. baax na bu dee ab sër. bu dee ab sër. baax na baax na. walaay lam sax baax na. lam sax baax na. ndax jigéen daan jigéen daan takk lam. walaay jaaro sax baax na. ko fonk rek. ko fonk rek. garde ko garde bu demoon ba ab jafe-jafe bu demee ba yëg nag jafe-jafe ab sëyam ci ab mu yëg ko mbaa mu ci boppam ci boppam jàpp ba sell jàpp ba sell julli ñaan rak julli ñaar rak fekk mi ngi sol canam googu fekk mu ca ñaan lu mu ca ñaan yàlla defal ko kon ndigal bi ñëw na kon nag ndigal bi ñëw ñu ngi xutba suñu doom nangul ñu tabaarakallah macha allah ñu bokk nag teewlu tabaarakallah ñu bokk teewlu ñu ñu jàng fatiha salaatal fatiha ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهو الذي خلق من الماء بصرا فجعله نصبا وصيرا وكان ربك قديرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أهل نكا ونرب إليه وعرم صفا وأوعد عليه يتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله ثم إنه لا يجتمع إثنان إلا بخضاء الله وقدره ثم إن مما خدا وقدر أن ننكها زينب باي بألي باي بصداق قدره عشرة آلاف درهم نقدا وبإثن وليهما بفرض الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسيه بإنسان جمع الله شملهما واتاب نسلهما آمين وبارك لكل واحد منهما على صاحبه نصلا وارزقهما بخير آمين آمين يا رب آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادر لما سبق ناصر حق ناقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفقير ما ولقى والقاتل نفسه سبق نازل عقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله marqué. Khalifa. Thank you. waaw maa koy am ah. gis nga. tey moom tey moom tey moom です。 Sénégal Sénégal Sénégal the plane. Mas não manda dentro. Imagina aí. Ah, bamba! Era pai. Aí, Jabu. Aí, Jabu. wooñu ba mu ñëw sama famille ngi nii kaay ñu ndeysaan déglu leen déglu leen waaw dama kaan Nagi toj, nagi, nagi, nagi, falilu yaa ñu moom ngir yaa ñu sañ nga noo jënde ay sabadooro bay Modou Kane sa waa ji tàmbali naa bay Modou Kane doomu ndey booga mbay bay Modou Kane yéen ñaar seen diggante yàgg na fekk naa lii bay loo tàmbul baaxul maa ko way taali ba suñu ba doomu ndey sama fat si de ndax baa ngi ne surtout sëñ Abdoulah moo tax ma yàlla may na ko la la la sin danaro may na ko Like who I Terminator, got, got Yeah.

xale bi ci njëyee maa ngi tax bi ci yaman dem ba kumba jaare jaay sunu maam moo xeexoon nag damee te ba mu xaari gërëm woon gërëm ñu danoo yendoo man gis naa la ràññee na ay doxandeem ey Modou Fall Mbuub gewal nga kii gewal la soo شطوط غرفة معجبة شطوط غرفة ما لو سموادي سموادي مكو يا يمود كفي سموادي سموادي مكو يا يدفعنا سممرو سموادي سموادي مكو يا يسوع مكان كنتنا laaj maanaam maa ngi lay nuyu bu baax sama waa ji kii la bàyyi seet maa ngi naka la. jërëjëf Tafa waaye ba gërëñe sama egg si noonu doon teew teew bis bi la grand bijoutier wax gën diris kenn yow nga sama nga yaay bu